may faral di wax ne kuréel gii di convergence taxaw na mag ñi yaakaar naa mi ngi bëgg toll ci ñeenti at ñépp xam na ne ba muy tàmbali la mbir mii di am ci jamono yi tàmbali am ku ni wax Ousmane ba nekk ci Gabon yëkkati ay kàddu wax ko ci sunu yépp ñu jàkkaarloo ak moom ba nga xam ne police bu Gabon teg ko loxo kenn ko jours jàpp naa ne bañ ko tegee ak loxo ak léegi ñu demandé woon état du Sénégal ñu indi ko Sénégal booba léegi yëkkatiwul ka kàddu waaye nag mel na ne benn sos kuréel gi boobu dafa fekk ni lii leen xamoon wala lii leen séentu egg nañ ci di wax ne kenn du màggale dañuy taal ay oto ci bu ci yoon yi egg nañ di wax ne kenn du gàmmu ji loolu lañuy def ak naan taluñu ay gàmmu taluñuy màggal fa séeré nag ñooñu ñuy wax ay tunkara la ay eneton xuma ay kaalso xuma tur yi yu kenn xamul maa ngi wote appel bépp daayira tijaan bépp daayira murit bépp daayira laayeen bu nekk ci bitim réew maa ngi demandé ñu contacter Convergence nekkal ñu fa képp koo xam ne gis nan nga wax loo wut wax segam ñoom ñoo capable di dem ci ay ambassade di ko attaqué ma jàpp ne murid ya fa nekk ak tijaan yi ak laayin ya képp ko wax ci seenub sëriñ capable nan war a man a saafara loolu ne am nangam sàll ko moo Omar Sall la oustaz nan bu ma nee yëkkati yenn kàddu yi di wax di taxawaalu ci réew mii dara fekkutu ko fi waaw ana tijaan yi ñi gëm maam alaaji Maalik ak maam eh, seexul islaam ak sëñ cere ba ana murid yi gëm seexul xadim ma ne fii ñu toll fii ñu toll laa wax conversation bi jëg na taxaw képp koo xam ne ni wu oustaz Sall wala keneen ak keneen wax nga lu mel noonu wala def nga ko ñun dana taxaw ak comité fa séeré jàmbaarloo ak yow jàkkaarloo ak yow jaare ko ci état bi bu sëtuwul nag ñu jàkkaarloo ak yow